le dialogue politique c'est-à-dire après dialogue bi nga xamante ne moom la ñu woote tàmbale ko fan fanweeri fan ak benn dina wax euh, gis nga ko ak yéenekaay bi di bés bi le jour nee na lu jëm ci mandat bi moom mooy nekk au cœur euh, ci déclaration bu njiitu réew bu Sénégal Macky est-ce que mën nañu xaar Macky leeral ne wala sax mën a en tout cas euh, bàyyi nit ñi loolu ci li nga xamante moom moo jëm ci question troisième candidature mandat bi muy woon a nekk point bi ëpp solo ci wàllu dialogue bi parce que moom rek ci la décision bi jógee et annoncé na couleur bi moom président xanaa ngeen ñaan ma ci njekk pour mu bañ a nekk candidat mais waruñu woon egg foofu président ak bépp resp bi ñu ko ëmbal ak bépp cër bu ñu ko jox Sénégal réewu démocratie la bu kenn moomul ñu taxaw ay institution ñuy teg ay nit ci bopp institution yi am constitution bu ko yanu di ay tex yu ñu bindu noir sur blanc mu leer nañ kon amuñu njekk ak teraanga bu ñuy ñaan que kenn ku nekk def li mu war a def muy kenn ku nekk respecter constitution bi loolu moo jaadu dialogue bi nga xam ne après ñu ci noppee dina wax xëy na ci conclusion ya est-ce que conclusion ya dina méngook li majorité sénégalais yi ànd parce que ouverture bi tëju làmb ouverture boo xamante ni bii dañuy dégg ay discours président yaa am sa doole xëtal président booy xët bul xool di am yërmande gëmmal di xët dans quel pays sommes-nous euh, am ñeneen ñu taxaw Euh, ak respect bi ñu ko ëmbal ak cër bi ñu ko jox ak cofeel gi ñu am suñu diggante ak moom lay Matar Diop nekk homme d'état mais dama dégluwaat discours am ndax cër bi ma ko jox ak naw gi ma naw xalaatam ak xam-xamam moo tax ma jël sama temps déglu ko ba mu jeex mais dangay ngay da ngay tiit gis nga état ni muy doxe amul baay ak doom état amul jarbaat ak nijaay état état la ñu seq nga am 70 ans ma am vingt cinq ans âge bi kontul li ñu seq mooy li ñu boole muy doxalin boobu. bu fekkee nit ki dafa dénoncé yow li nga def da nga am 70 ans bul jàpp ne yow daf la attaqué directement li ngeen bokk moo tax mu attaqué la affaire bi amul nday bàyyi. Euh, beneen exemple bu xale bu am 25 ans mu ni am na ku ni ko xam nga xale bi la doon bi la doon attaqué mun ko déedéet mun ko yaa yaay ma doon ànd baal yi amul sens euh, ci waxin c'est-à-dire que néew na ku takk soxna te nekkuloo ngelu keneen. laata nga koy takk waxin la néew na jigéen bu sëy te fekk na ki ngay ki ngay sëyal nekkoo nekkul woon faru kaneen loolu waxin la mais ci biir dialogue du indi waxinu c'est-à-dire que ñàkk kersak ndaw gi séq yow li ngeen di xëccoo te muy institution dialogue la ñu wax président mi toog jiite yëf yi te naan leewaayu leen ma pour ma may leen dëgg naan président yow yaa takk caq bi yow yaa yow yaa mujje pousse bi fexeel ba mu rëy ci say loxo te ci géej nga nekk fi mu nekk nii pousse bu waddee dootul feeñ day suux pousse géej pousse bu waddee ci géej moom gasi mbaal du ko génne ba mbaal du ko génne gasi loolu moom taasukat yi wax nañu ko loolu ngay wax président ni ko pousse baa ngi ci say loxo te yaa ngi ci géej président li nga xamante ni bi jàpp nañu ñàkk fonk ay institution la fonk ko ba noppi nag daal daañu wax ndaw ñi pour ñu gën a jox cër suñu ay institution institution ki nekk ca boppam moo koy incarné mais comme dialogue bi ni mu commencé beneen bi ci des nga jël dialogue bi euh, jël membre Benno Bokk Yaakaar ancien président assemblée nationale est-ce que daa ñoom espoir mu piloté ko comme ni ko Famara Ibrahima Sagna defee woon yëpp ay question la dialogue boo xamante ni bi ñu ci bokk bari wuñu par rapport ak euh, ñi dominer géew politique bi ci Sénégal lay wax bari na ñu ci bokk mais ñi ci bokk nag ay chef de parti Sénégal bu fàtte ñaata parti politique ñoo ci nekk am na parti yoo xam ne seen participation ci dialogue boobu noonu comptabiliser wul wala mu refléter nombre électorat bi Sénégal am partie yi nga xam ñu am électeurs euh, bokkuñu ci dialogue boobu Idrissa Seck teew na fa woowee nañ ko chef de l'opposition Sénégal déjà amagul loi buy saxal chef de l'opposition comme annoncé président de la République kon woote fantôme la mu muy tax taxandeer benn ñaareel bi ci des mënul nekk chef de l'opposition donc da nga jël numéro 2 ci ay élection après nga dem liggéey ak nguur gi soppi sa bopp mburu seey ci biir soow mi donc après Idriss Seck Ousmane Sonko moo fi nekk ma Madické Niang nekkatu fii Issa Sall nekkatul ci boppu PUR Cheikh Tidiane yu moo nekk ci boppu PUR te ñoo parti yooyu ñoo bokkoon ci élection présidentielle yi dix candidats yi amoon ci élection présidentielle 2019 wala quinze yi déclaré woon ñu tànn ci cinq donc ñu dem ci élection loolu moo wax dakk Sénégal nañu ubbi bunt bi ñu am ay candidats yu bëri bu dee dix sax baax na bu dee quinze baax na parce que organiser élection li mu metti metti metti Sénégal am na ay techniciens yu ko mën a assister ba lépp dox comme ni mu jaadoo Sénégalais bu nekk boo matalee am nga sañ-sañu bokk ci élection xëccoo comme ni ko Déthié Fall sañe comme ni ko Ousmane Sonko sañee comme ni ko Macky Sall sañe dialogue bi bu buñ ci noppee dina wax mais est-ce que conclusion yi dana méngoo mooy fi ma débuté woon ak li Sénégalais yi di xaar ci boobu la dialogue al amin foofu la question bi nekk. alors Birahim euh, bu fekkente ne mën nañu wax ci beneen euh, ponk bi Clédor Ciré Ly l'avocat de Ousmane Sonko